beneen bi ñu euh, profito du wàccaat tuuti ci dëkk bi di tuubaa gis nañ léegi ndaw ñu bëri nangootuñoo liggéey nekk ci dëkk bi rek di dox ci ay ay ay chantage ak loolu ban message ngay lancé na yenn ndaw ñi nga ko sañ a wax. waa xam nga sax waxuma mag mais dafa am kilifa gu ne woon euh, kilifa yu bari nanguwu ñoo wax li tax nanguwu ñoo wax dañoo log te ku log logal foog naa ne euh, loolu dégg nga ko déggati ko lu mën a log logaloo kilifa nag gone gum jàpp nga fot te dootoo wax. mais pour man ñu baal ma rek mais euh, dafa échec ci bu yàgg pour man ndaw ñi dañu leen a war a jàngal pour man ku war a jàng français dañoo war a fexe parce que Touba ay junniy élèves ñoo fiy jóge par bis di dem di jàng te ñoo ñëpp ay murid saade xa leen jur te xam nañu xam ne méthode euh, bu bees bii bu njëkk daara ñun ñii bala ñoo mas a mën a wàcc dañoo am fukki at ak juróom ca daara ja parce que njàngale mi moo yeexoon léegi nag njàngale mi dafa gaaw ñetti at nit mën na cee mokkal bind ci kaamil dem jàngi francais te bu boobaa nag tey amul liggéey boo xam ne di nga ko liggéeylu lu jëm ci wàllu xam-xam te doo dem ndakaar wuti ko fa te loolu jaadu Touba mooy deuxième capital économique ñi fi nekk dañoo war a jàng alxuraan mokkal ko dugg ci école français bi lañ ci war a jàng ñu jàng ko parce que dañoo mérité jiite réew mi dañoo mérité nekk ay directeur loolu nag ay nit a fi nekkoon di jabolise rek nekk ci sëriñ si naan nasaraan baaxut te oto bu mu defar yaa koy njëkk a jënd eh, jàkka jooy defar ingénieur yi tubaab yi ngay woo ñu defaral la ko ba pare nga ne tubaab baaxut te la nga gën a fonk tubaab a koy defar loolu ay jabolisation la man pour man li ma gëm mooy école yi ba pare am na ay école privée yu ne ci dëkk bi biir Touba yu cher pour man li ma gëm mooy dañoo war a yaatal école français yi ku bëgg jàng alxuraan jàng bëgg a jàng jàng ko looloo tax fi mu ne daara ja ñetti at nga fay dem boo wàccee ñëw amoo métier dawal sareet a fi am te xam nga ne ku xam na ne dawal sareet dafa xaw méngoo ak violence parce que dama la wax xam nga làmb tey soo fa demee ku mel ni Siteu ngay fan na muy waxe ngay waxe sol sa mbaxana wenglu sol sa nangam nangam nangam sareet yi boo ci demee ña ngi ci fekk façon boobu la def gens xeex bagaar xotti def leneen nangam sangam pour man nañu former xale yi te Touba heure boo wàccee alxuraan rek foog nga ne bokk nga ci mag ñi da ngay gis xale bu ndaw yari weem du liggéey maay doomi diw jël sa mbaxana wengal ko xeesal ba weex tàll jël sa sikkim xëcc te amagoo fukki at ak juróom liggéeyul nit mënta ñàkk dund nit bu liggéeyut faw mu dugg ci lu mu wërta dugg pour man nañ leen nañu jàngal xale yi encadre leen formé leen état bi dugal ci loxoom jàppale ci sëñ bi ndax ku dem ba tabax université bii mu tabax nii bëgg nga nit ñi am xam-xam bëgg nga nit ñi formé wu mais état na ko jàppale te état day saboté Touba de donc sëñ bi yow état yaa ngi assainissement bi fi ñu toll nii sawetu fii nii rek gars yi def fi ñaata. dama ne 23 milliards xaw ma. dama ne loolu du dëgg. ay yi def fi de. yow fan nga mos a gis tëli boo xam ne amul canal tëli bii ngay wax deux voies la woon te bii deux voies la état bi fay te benn voie lañ fi def benn ba dañ koo séddoo. ah nee nañ dafa xajul ci biir dëkk bi mooy bi nekk ci biir. waaw yow xanaa jaaroo fii. laa même bu fi xajut nañ ñu woon beneen bi fu ñu ko gàll ba pare bu fi xajut ñu defal ko benn ak canal tëli boo xam ne bu tawee biir tëli bi ba ci sa oom yi day taa nga loolu tëli boobu mënta am ñetti at fi ne tëli bee ca kaw fu baree bari yàqu na dëkk bu mënta naan ndox mu sell nga naan ay assainissement vingt et seekal lañ nekk xel koom sax ak mbaadaan ak wóor a soogeeg maatam dëkk yi gën a sori dañuy sangu di naan di sangu piscine Touba di deuxième capitale économie ñëpp a mar état bee ko saboté ndoxum Touba mi état bi da cee dugal loxoom ba pare di dagg wan yi ak di dagg kii yi di ci roof ay saaku mbalit loolu état dong nga ko man keneen mënu ko état loxo loxo ndoxum Touba état ngi ci du ñuy wax nag waaye man xam naa ne loxo état ngi ci. Hmm. wallaay warabul kaaba. dama ne loxol état ngi ci te mooy dagg te woy di ko sakk Touba état da leen a jàppal en da nga yu bari nga fiy gis yoo xam ne dañ koy infilter di ko état ne ca ginnaaw pour toroxal ndaw ñi ak toroxal ñi dëkk ci dëkk bi parce que jubuwuñ ko te am réew du loolu Touba à part Dakar li muy dugal ci ci li muy dugal ci ci ci ci économie ci dëkk bi beneen région dugal ko ñun ay chef d'entreprise lañ man bëri na entreprise yu may yëngoo yoo xam ne à part Dakar Thiès gi sax ñu naan deuxième capitale à dakaar Dakar euh, ci ci ni ñuy sondee ak ni ñuy wàññe ak li ni ñuy jaayee à Dakar Touba moo ci te loo jaay ci année bi trois jours màggal tubaa dangay ngay jaay lu toll li nga jaayan ci année bi état bi bu doon fott loolu tuuti rek di ko delloowaat ci dëkk bi euh, léppay saawan baawan ba pare maire bi ñu teg ko ci yoon fii maire amu fi dictature moo fi am. moom mooy ñooy sëñ bi sëñ bi Abdoul Ahad Kala woo jox ko dëkk bi sëñ Sidi jox dëkk bi sëñ Sidi jox Abdoul Ahad ka dëkk bi sëñ mun Muntaxa wàcc na sëñ Sidi wàcc nañ lu baax dong lañ bëgg moo tax ñu jox ko dëkk bi yow tey dëkk bi mairie bi nga xam ne moo war a ŋàcc ndox mi tey boo demee mairie ba dafa lab jëmmi mairie ba war a ŋàcc dafa lap kër ñoom sëñ Assane Mbàkke 20 mètres la ak jumaa ji ndox ma nangu na ko buntu kër gi ndox ma nangu ko te taataa boobu am na fa juróomi at te ay nit dee nañ fa daaw te chaque année ñu ne état bi dugal na fi xaalis responsable politique ba ca wet ga lekk ko toog hmm. ah bien sûr deuxième capitale économie bu xiinee mu indone mairie bi man li ma ciy dugal man rek par at am na 30 man man man man sama entreprise su bopp hmm. barke Serigne Touba te ay milliers de personnes ñoo ko fi def ñu ne budget bi cinq milliards yu topp la bu bale jotee nga woo Baye Fall ndox mi nee nga sa yoon nekku ci éclairage publique nga woo Touba ca kanam yow lan ngay def 5 milliards yi fu muy dugg dañ koy séddoo gone yu ndaw yu réew yu xamat yi ne ci dëkk bi di saaga kilifa yi di wax lu ñaaw ban dugal leen ci mairie bi. wor sañ tubaa wor sëñ Saliou ndax maire bi ni ñu ko tëggee woon mooy dañ ne kër sëñ Touba yëpp nañ fa jël ku ne ñaari nit man kër sëñ Aliou Diouf Lambaye laa ne bokk saa maam sëñ tubaa defar ko saa maam bokk ci ñi ñi gor dëkk bi saa baay sëñ Touba yor ko ci loxoom ñun suñu famille amul kenn ku bokk ci maire bi ak yeneen kër yu bari ba pare ñii bokk ci maire bi da ngay bokk APR ngir nga mën a bokk ci maire bi bokkul bokkul APR doo mën a bokk ci maire bi. maire Touba waaw ban opposant nga gis ci maire bi Cheikh Coro da nga caa gis sëñ Assane Mbacke da nga caa gis Baara Doli koo ca Cheikh Abdou da nga caa gis kenn ña fa nekk ñëpp réew mi lañ bokk ak APR. waaw foofu la ñuy profité Touba gis nañ temps yi ay gone yu yu fi jug ku wax rek ñu lijjanti nga dem kaso loolu yow yow lan nga ci gis lan nga ci xalaat. waaw loolu li ma ci xalaat mooy euh, euh, parce que loolu fan yii yëpp maa ngi ci doon wax mais Antoine Diome dafa xamut liñ ko jox. ministre <laughs> de moo yor réew mi de. waaw dama xamul fu muy taxaw parce que ministre de l'intérieur ni mu toll. pour man waroo jaxasoo ak ku amul xam-xam wala nit ku nitewut li ko dal lépp nag jaxasoo gone yu nitewut amuñu xam-xam te amuñ benn wàccuwaay ci dëkk bi moo ko teg damaa xam ne ministre de l'intérieur man li ma ca xamoon wala état wala ministre de la justice pouvoir bi nga yor nga koy xeexe ay suufi jàmbur ak yooyu laa ci xam. waaye yow ñaari gone yoo xam ne ñoo bokk dëkk bi kii ànd ak Ousmane Sonko kii ànd ak Macky ki kii ànd ak Macky Sall wax dara ki ànd ak Ousmane Sonko mu fayu ñu dem woo commissaire mu jël si la looloo fi am de ñun ñii de bi fi Ousmane Sonko di ñëw Ousmane Sonko moo téléphone ne ma dinaa jaar 28 bi ko gone yi déggee ñëw sama buntu kër fees fa del ne dañuy sànni ñu sifaay leen sifaay yu dagan ba ndaw bàyyi fa seeni oto parce que nag euh, man am na loo xam ne duma ko nangu man euh, lijjantiwuma kenn mais nag sama sama sama fief moom euh, ku fa ñëw. di ma jéem a attaqué moom damay jëflante ak yow ba yoon ñëw ca lañ ñëw def la ñuy def ñu sifaay leen fa ba ndaw foog naa ne euh, man bokk naa ci man man maay responsable bi nga xam ne man la sëñ Mountakha masawoo ne ma Macky Sall dafay ñëw suba nangam nangam wax ma ca ba foog naa ne cinq yi gisatoo Macky Sall ñëw Touba kenn di ci sa kanam Macky ñëw Touba kenn di ko yuuxoo parce que ñun loolu li ma ci jublu woon mooy. morceau yu ruus lañ doon yor te dañoo bokk ci dëkk bi te président Abdoulaye Wade i fi jóge woon moo ne woon ku am la naqare yoral lu ruus te loolu moo gënoon a silvissé lii lii ko dal dem na ba léegi mën dox ba ca guddi lay dox buy ñëw ay garde koram fa leen di bàyyi làqatu loolu nag nit ñi yoroon morceau yu ruus mu taxaw waxtaan ak ñoom ñu wax leen seeni doliance moo gënoon ba ma sëñ mun taxaa woowee wax ma ca lam ma cay wax ba léegi gisatoo ko man ndax yow bokkoon nga ci ñi nga xam te ni 24 heures ah, avant ci la sëy seen wala gars yi daan ah. wàcc sa buntu kër jeena te teewul bu fi jaaree ñu yóbbante koy dàllam ba ma ca sëñ ba waxee lam ca bëgg ba léegi gisatoo ko du dëgg kon bu fi Ousmane Sonko di ñëw mu am wàccuwaay ci dëkk bi parce que 28 mooy tubaa Touba 28 ci sama loxo la ne te man programme Ousmane Sonko laay jàppale moom laa gëm kon nag ku fa jaar di wax waxu Macky Sall te Ousmane Sonko war faa ñëw da ngay tooñ ñun bàyyee nañ leen ak seen lépp li sëñ bi wax ci dëkk bi ci loolu lañuy dox mais suñu leader nag bu fi ñëw nan nu ko bàyyee parce que nag euh, man lu lu yàggul bi ñu libéré Moustapha Lo Junior rek sëñ mu Mountakha daf ma woo woo ko ñu toog am lu ñu waxtaanee lu yàgg yàgga yàgg yàgg kon man sëñ bi yitte ji mu am ci dëkk bi ak taxawaay bi mu am ci dëkk bi man kenn gënu koo xam ndax amul benn politicien bi mu mujj ci kanam sëñ Mountakha te la ma wax dégg naa ko na ngeen def bu ngeen mënta ñàkk politique na ngeen def politique te maa ngi leen di woo ci gën a jàpp ci liggéeyub sëriñ bi te ngeen dimbali ndaw ñi gis nga ne ba ñu fa jógee yóbbu nañu ay don yu bari ca euh, mag bu euh, fii Mbàkke bërkaati démb yóbbu nañ cinquante ventilo ci mag bu Jurbel yóbbu nañ vingt ventilo ci mag bu Njaareem ci suñuy propre moyen bopp ak ay nit ñoo xam ne yëkkati nañ seen alal def ci ñu ciy gërëm nag mu Lo Senior mi jiite Mouwahiboul Akyas nga xam ne eh, ci wàllu liggéeyal Serigne Touba moom ak eh, joxe ay don ak dimbali ndaw ñi kenn mënu ko ci ku ko ci woo sawar na ci ñu lëkkaloo ceeg moom am liggéey bu am solo lu ñu ci liggéey ci ndigalul nag sëñ Mountakha kon ñun xam nañu li sëñ bi bëgg ci dëkk bi ak li mu fi bañ te ñun produit yoonu murit lañ lu Serigne Touba amul bëgguñu ko mais nag sëriñ bi tënkuñu ci suñuy position politique ndax sëñ Mountakha bu ne woon bàyyil politique tey bu subaa moo Ousmane Sonko ne ko bàyyi naa la waaw mais damaa toog ci kanamu sëñ mun Mountakha xam lam tere xam la mu bàyyi xam xam ko yemale lam ci bëgg lépp dinañ ko def mais nag li ñuy wax ci dëkk bi yenn kii demeewul noonu non non ah, man de sëñ bi waxuma ko cadre yooyu moom dugg ci waaye xam naa ne bu ma woon ma ñëw mu ne ma na nga bàyyi politique ca saasa laa koy ba waaye lam ma digal ak lam ma tere xam naa ko la ma baaxle soññ na ma ci la nga xam ne xaw naa caa yaafuus dàgg na ma ci te ca loolu laa fas yéenee nekk ndax politique bi nag xeexal sa réew ak yooyu yëpp am na solo waaye nag ñun euh, dañuy damay wax chaque jour ne ñun euh, Serigne Touba daf ne kiraamam kiraamatu xatiyat yi boo demee ci ax bubtu ma nga fa kiraamatu xatiyat yi boobu ñun ñun dañ cee bokk ndax mbindum sëñ Touba ne na kiraamam mooy am mbindam mbindam nag xasida yi la ak seex si cheikh si nga xam ne ñii ay ndaanaan lañ woon ñii doonoon leneen mu jël leen def leen mu leen def kon loola loxooma bu kenn wëlbati saay wax nag naan yàllaa bind sëñ Tuubaa bind cheikh si yàlla moo ñu bind moo ñu wërsëgal moo ñuy rey ci lu dul sikk comme ni ko sëñ Souhaïbou waxee ci xuratul ayni fii itam yesi bax di faraidil ayni waaye nag bi ñu yàlla bindee ba pare teg ñu sëñ Tuubaa dafa jël am leneen loo xam ne da koo def ci ñun ñu wuute ci ak nit ña muy def def bi mu def ci ñun kon ñun lu métti métti métti métti ci géttu sëñ Tuubaa rek la ñuy sowe teyit euh, dëgg bii ak xettali sa réew ak ngëm-ngëm bii ñu ànd di ci dox loolu yoonu murit bañ ko sos te bañ googu dañ koo gis ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu ko boppam ñoroon waxatuñ ko dafa joxe boppam ngir nit ñi waaye barke alxuraanu karim du gën a gore sénégalais yi